di gërëm di sant ñi nga xam ne ñoom ñooy comité d'entreprise républicaine ñëw fi euh, docteur Tombo Babacar nekk le coordonnateur de ce comité d'entreprise avec à sa tête le président Adi Sall ak ñi ñu àndal ñëpp ci lii nga xamante ne ñoom defal nañu ko tey ñëw ci seen programme campagne de sensibilisation pour vaccination contre la Covid-19 ñu ñëw ci département de Pikine particulièrement fii ci commune Pikine Est ñu mun na bëgg leen a gërëm sant leen ci loolu nga xamante ne li yëkkati nañ ko yemale ko ci ñun ñi waa Pikine ñu nga woon Géejawaay tey ñëw nañu Pikine te noonu lañ nar a continuer ci 45 département léegi 46 département la yi nga xam ne ñoo nekk ci biir senegal defe naa ne loolu lu ñu war a saluer la dañ leen a war a gërëm sant leen ndaxte ñu ngi ñuy fàttaliwaat loo mel ni nit ñi lu ñu bëggoon a fàtte te kenn waru ko fàtte dafa mel ni nit ñi dañoo jàppoon ne xëy na mbas mi dafa jeex mbas mi nag jeexul ba tey mbas maa ngi fi rythme bi nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ñu ngi sant yàlla ndaxte nañ ci tiite woon lépp yàlla musul nañ ci ba yàggul ca lañ ci doon ragal lépp yeggul ci boobu niveau waaye taxul mu génn fi te puisque fii ak génnu fi rek fii ak génnul ci suñu réew génnul ci àdduna nañu xam ne mbas mi mën na ñëwaat ci façon bu munti ne kon li gën moom mooy ñu fagaru dañoo war a fagaru moo gën fag faggu defe naa loolu la wolof di wax te dëgg la nañu jéem a jóg gaaw ñàkku bi nga xamante ne bi ñu ngi ànd ak suñu sago ànd ak dal ndaxte bu ñu jàppee ne dafa jeex ñu ngi juum ku mu duggul sa kër nag wala dugg sa njaboot xëy na sa xel mun naa jàpp ne dara newatu fi waaye surtout ndaw ñi ñu ngi leen di woo pour que ñu xam ne pour aar seen ay waajur aar ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ak ñoom ci biir kër yi ànd ak yenn jàngoro yi nga xamante ni Covid yooyu lay gën di wër pour dimbali leen surtout yenn personnes age yi même bu dee ñooñu vacciné wu ñoom ci seen bopp ndaw yi dañoo war a vacciné wu. xëy na ñoom du leen lor ni muy loree mag ñi waaye ñoom bu fekkee ñàkkuwuñu ñoom ñoo ko indi jox ko mag ñi. te loolu nag kenn ñaanu ko yàlla donc moo tax campagne bi il faut ñu continuer ko di ko di di ko def continuer de sensibiliser ci loolu continuer aussi di wax ne vaccination bi rek moom la am comme moyen te yooyu wax ñu fi daa wax ay waxu vraiment ay kasaw-kasaw la parce que lu ne dégg nañ ko fi waaye léegi kenn waxatu ci parce que nag xam nga waxu politique politicienne dafa baaxul nit doo dem ba mujj nga nga yegg ci foo xamante ne da ngay wax loo xam ne yow si sa bopp wóor na ne li ngay wax amul te yow pikiru nga ba pare ñàkku nga ba pare toogaat ñëw janoog nit ñi di wax ay wax yoo xamante ni kenn xamul mooy lan di bëgg yàq xelu nit ñi te yàlla xam na ne yow ak yàlla rek xam nga ne li ngay wax noonu dara abu ci te ki nga xamante ne que moom mooy njiitu réew mi ñu toogoon fi jamono naan wooye nañ ko wane ñoom moo njëkk a jóg wonewu ñàkku ñi mu àndal ñëpp ñàkku xanaa nit nag loo bëgg bëgg bëgg bëgg xaw ma politique doo dem bay def loo xamante ne mën nga cay ñàkk sa bakkan wala lor si sa njaboot wala lor si say mbokk loolu kay xanaa loolu politique jaralu ko kenn kon nag loolu ñu doon xaar ñoom bu ñu ko defee pare dafa jot nag nit ñi bàyyi wax yooyu te woo nit ñi pour ñu dem ñàkku ji ndaxte amuñu leneen lu dul ñàkku ji ñàkku rek moom moo ñu mën a dimbali ndax mbas mi mën a génn ci àdduna moo tax ñuy gërëm di sant bu baax a baax waa comité d'entreprise républicaine ci biir initiative ñu jël di ci biir Sénégal di sensibiliser nit ñi pour li nga xam ne ñu ngi koy bëgg a jéem a fàttelu te waruñu koo fàtte ñu delloo ko ci xel nit ñu jógaat dem taxaw surtout ndaw yi dem taxaw dem ñàkku ji loolu daal moo ma leen di gërëm di leen sant waaw département de Pikine faible na trop euh, du ci Pikine rek ci Sénégal yëpp parce que quand même euh, bu ñuy wax naan globalement ñu ngi ci ay 401000 pour 14 millions de personnes ça veut dire que taux bi faible na loolu ñun ñëpp xam nañ ko moo tax yu mel nii dafa baax ñu koy di def di ko mun di jàllale wax ci imaam yi ñu wax ci su fekkente ne ñu ngi ci biir jàkka yeeg jumaa yi wax ko délégué de quartier pour ñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo dëkk seen biir gox yi mais wax ko aussi rele communautaire yeeg bàjjenu gox yi ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci santé bi pour ñu dugg ci biir kër yi wax ak nit ñi sensibiliser leen même association des jeunes yi baax na ñu jël ko porter ko à leur niveau ñu approprier wu loolu def ko benn programme moo xam muy ODCAV yi nekk ci département yi moom moo xam mu mooy les équipes de football d'une certaine dimension moo xam muy les autres organisations de jeunes yi nga xam ne am na mais même autre organisation faîtière ba mu munti doon dama yaakaar ne dañuy war a wax ak ñoom pour moom am une appropriation communautaire nit ñëpp xam ko ba nga xam ne dootul jarate ñu ciy sonn ci kenn defe naa loolu daal moom mooy li nga xamante ne moo tax ñu rafetlu bu baax a baax li nga xam ne waa CR mooy comité d'entreprise républicaine def nañ ko di ànd ak président de la république son excellence Macky Sall ak gouvernement ci campagne de vaccination bi nga xam ne am nañ ko. li may a wax rek moom mooy d'abord di gërëm di sant suñu collaborateur bii di monsieur le maire Abdoulaye Timbo mi nga xam ni buñ ko saisiree ni que bëgg nañu dérouler suñu caravane fii mu kontaan si lool. jox ñu accompagnement si anam bu nekk loolu moo tax ngeen gis mobilisation bu am solo bu ñu gis fii tey lu ñu wax nag te moo tax ñu jog mooy bu euh, vaccin yi commencé si lu ñu waxtaan ak monsieur le président Macky Sall ñun waa comité d'entreprise républicain mu nangul ñu gunge ñu financièrement ni dem leen ngeen nekk sama soldat dem leen ngeen wax ak population bi pour que ñu fexe dindi fi Covid 19. loolu moo tax tey bu ñu ñëwee fii dans le département de Pikine comme ni ñu ko defee woon si Géejawaay ñu waxtaan ak population yi dans toutes leurs composantes pour que ku nekk si ñun nekk le porteur de projet ku nekk si ñun dem si suñuy dëkk dëkkaat yi dem suñuy kër yi dem suñuy gox-goxaat yi waxtaan ak nit ñi nit ñi mën a respecter les mesures barrières ndax Covid bi ba léegi mi ngi fi waaye itam ñu mën a dem vacciner wu ji à partir de 18 ans ba ci kaw ñu mën a fexe Covid 19 génn Sénégal Covid 19 nekk vraiment une ancienne histoire. ba sunu économie bi nga xam ni mi ngi commencé di sooxee ñu man ko redressé waat ñu delluwaat si tànk yi nga xam ne président moom la dëgmal muy plan Sénégal émergent ñu mën a suqali Sénégal fexe ba Sénégal am émergence bi nga xam ni ñun ñëpp moom la ñu bëgg. waaw li mu si wax moom moo si nekk rek ndax euh, gis nañu quand même que ni taux bi mi ngi wàññeeku mooy taux de contamination bi mi ngi wàññeeku bu baax a baax a baax loolu tam dañu siy gërëm di si sant waa kër docteur yi nga xam ni. bu Covid bi tàmbalee léegi nelawatuñu guddi nelawatuñu bëccëg ñu ngi accompagner population bi jëleen jàppale waaye ñu ne itam nu ñu xam ni Covid bi ba léegi mi ngi fi te benn kaa kese su fi desee warul tax ñu nelaw ndax benn cas boobu suñ ko seetaanee mën na lawaat ba indi sax yàlla nit yàlla musal troisième vague te jàpp nañu ni ku nekk si ñun war na taxaw xeex ba ñu jëlee fi Covid bi ba troisième vague ba ñuy wax sax yàlla dimbali ñu ba duñ ci egsi ñu dindi ko fii ba Sénégal delluwaat si économie bi nga xam ni moom moo fi nekkoon Séné président tekk fi muy le plan Sénégal émergent. su ñu jógee fii nii d' abord je dois rappeler war war ñu def toutes les artères de Guédiawaye de de Pikine daan fa def caravane bi jàllale suñuy sono expliquer nit ñi ni ñu lu ñu dem vacciné wu. suñ fa jogee nag ñu dem si département de su ñu jogee foofu daa ñu dem fële si département de Thiès jaar Pout ak Thiès ak Diass tëjee nag suñu caravane incha allah. fii si dakaar si commune de Sicap Liberté di leen wax rek ne lii première phase bi la suñu paree quatre du département yooyu dañuy jébbal bataaxal ak ay vidéo président mi nga xam ne moo ñu santoon liggéey bi su ko defee itam incha allah lu ñu nama mooy une national bi nga xam ni dina ndar képp Sénégal yëpp ñu man leen sensibiliser ñun ñëpp ñu taxaw xeex mbas mi bu mu génn ci Sénégal bi